maaleykum waa bien fidèle internet yéen ñi nga xamante ni yéen ñuy bàyyi xel ci site internet yi fi euh, kii sama day sama dur sama droite la de waaw sama droite 6000 euh, la waaw mais bu loolu sol lan la. waaw ay slo slogan boppam. te yaa ko gën a xam. te da dafa mel ni militaire nga indi. waaw tey non kagul bi rek. booy banlieue bi. xam rek mm. ñun ku ñu xam-xam ne ñun ay doom banlieue lañ. <laughs> merci. acca 6000 euh, maa ngi bu baax baax di la jox sa wàccuwaay. waaw di leen nuyu di leen siyaar di nuyu sénégalais yëpp oh, di am di ak mbégte seen teewaay fii quoi di rafetlu seen liggéey seen liggéey rafet na trop. Mhm. Oh, lii lañ soxla. Mhm. bi ne si internet li lañ soxla quoi dugg si biir askan bi di génne loo xamante ne. Mhm. ñu fa mënta yegg si. ñu mun koo seetaan quoi. si qualité si bu rafet qualité bu rafet macha allah. Euh, simil euh, ñu gis la euh, jamono ji dafa mel ni li gars yi naan transhumance da ngaa ñëw ci ki nga xamante ni moo di Wally ko Seck. non transhumé moo de. Ah. laay. sama kër sëriñ laa nekk. wuyul fenn nga jàkkaarloo sa kër sëriñ sama kër sëriñ laa nekk tension moom sama kër sëriñ laa nekk. Hmm. waaw. mais daan nga fi daan daan nga fi wax lu baax ci Sidi jékki ñu gis la nga nekk ci wàll. waaw mais soo bis moo bindoon noonu liggéey la rek. non hmm. Sidi waaw di ko di ko nuyu au passage ah, mu nekk ni ku baax mu nekk sama frère di nuyu di préto di nuyuwaale waa Subatel yëpp euh, di nuyu Matadio Subatel di nuyu jumeau yi Magor di nuyu gaa yëpp waa liggéey loon nag liggéey bi jeex. liggéey bi jeex loolu dong la rek mais du dara. mais bi ñu la gisee ngay ànd ak Wally est-ce que woowuñu la pour maanaam fexe nga ñëwaat ci kër googu nga xamante ni moo di suba teel. non non non non non non non non non non fii dama fiy ñëw ngir liggéey Wally damaa woon jaxarañ ma gis damaa woon ma gis ma topp rek loolu dong la rek. lan la la Wally wan. Wally damaa woon rek damaa woon damaa woon loo xamante ne ko woon nit topp la. waaw ku ne xam na sama diggante man ak moo fi ñu jaar. ak jafe-jafe yi si nekkoon yëpp. waaw mais si kaw loolu tey. borom bi dimbali ma won ma loo xamante ne euh, loolu la war a ma topp ko. Mhm. loolu dong la mel dara. Mhm. Mhm. après jafe-jafe lan lan nga lan nga jàng ci digg sa diggante ak Wally. waaw jàng naa lu dara mooy mooy mooy Wally li dimbali rek. mooy mooy mooy képp ku nekk ramdaam muy nga am fi dix ans am fi vingt ans li ma Wally defaral defal ko kenn. gars yi Wally ay oto ak kër la leen may. man Wally damaa sëwee sama vie la sëwee daa fekk may dund vie bu garaaw mu yóbbu ma si yoon. jeex na. mais yor si si yoon si laa defaroo si kaso bi laa defaroo. nan nga defaroo ci kaso bi. dama ko xam rek. waaw mais da ngay expliquer yi parce que tey jii am na ñoo xamante ni def nañ fa dix ans am na xam ne def nañ fa cinq ans yow suñu borom dimbali na da nga jox exemple. waaw waaw waaw mais tamit di profiter encore ah di lancer di lancer benn message ah di wax gars yi képp ku nekk si internet bi di xuloo ngir doomi aadama di saaga jartu ko ko quoi. Ah. Mhm. parce que parce que gars yi ku xool si ñun nekk war ngaa mën a xam ni euh, yoon bi nekkoon baaxul. Mhm. kon tey. kenn warul taxaw si internet bi di saaga kenn ngir nit xam nga Sidi daam ñu ko bëgg. Mhm. daam ñoo xamante ne si moom lañ yaakaar pour dund. Mhm. yaa ngi dégg kon kon kon kon bu dul dara da ngay ñaanal quoi carrière bi sori parce que tey ñu ko yaakaar dafa bëri. Mhm. mais Wally damaa defar barki sëñ Fallou. ci naka la la waari defale waaw si gis nit koo xam ne carrément tey mu ngoon si benn situation boo xamante ne situation bu doy waar. dox si mbedd bi di balaay ay armes di yor loo xam ne dañ koy tere si dëkk bi. Mhm. bien vrai que nag nit ñi xam nañ ni tuxuma naanuma sàccuma gens ma. Mhm. parce que man ku ma xam liggéey nga ma xamee. à mhm. liggéey mi soo biis. waaw ma tooñ ko mu teg ma si yoon yóbbu ma si yoon mais sant naa yàlla baax a baax baax kenn ku ne xam ne nii àdduna ñettee si nekk dee feebar wala kaso. yàlla sédd ma kaso mais kaso bi sant naa si yàlla bu baax a baax ba tey borom bi dimbali na ma. ba tey xam naa maay kan. Mhm. sant naa ko gërë gërëm naa ko defar na ma de ak sëñ Fallou. defar na la defar na ma trop. sa digganteeg soxna ay dara parce que gis nañ ngay expliquer mhm. euh, mais duñu bëgg mu nga gën ci approfondir sax sa digganteeg soxna ay dara. waaw kooku mooy jabar le porte-bonheur de la musique sénégalaise kooku lu mu jur lu ne boo ko laalee texe. Mhm. waaw xam nga xam nga xam nga soxna dama jógee kaso ñëw kër ay Ndiaye asoxla kër Baye Ndiaye man ak moom Ndiogou mbay Ndiogou Mbaye woo ko ñu waxtaan man nag moom loo xamante ne sama yaram dafa daw sax. xam nga nit war warta tooñ ko ko tooñul dëgg la ba may nekk ak Sidi mënoon naa jàppale Sidi beneen beneen beneen façon jàppale mhm. mais pas jàppale ak tooñ ak tooñ waaw heure na laay bañ mu dal ñu bëree bëri mhm. ñu waxtaan ma ne moom kàddu yu rafet mu dénk may kàddu ma dénkay kàddu ma xam ni man maa juum mhm. mais kaso bi metti woon na trop nag mais jamono gi sant yàlla sant yàlla waaw parce que xam naa li ma def xam naa fi moo war a maa ngi jàppale son excellence Waly gis ngeen ko <laughs> mais mais te tooñu ma kenn. mais changement gën a gaaw. waaw dama ne maa ngi jàppale son excellence Wally te tooñ ma kenn ruube ma kenn saagu ma kenn parce que tey su ma génnee tey dal ci ko Sidi Sénégal ay xeeb ma parce que ànd moom liggéey. Mm-hmm. ñu liggéey liggéey boo xamante ne jàpp si carrière am parce que carrière Sidi fu mu toll noonu. ku ne xam ne ni dooy wax ay liggéey la. Mm-hmm. te Sidi kenn ku ne xam ne nii tolloon na foo xamante ne boo ne waa li ne mais xam nga jamono gi am na écart. Mm-hmm. muy ñu wax leen ko mu ñu bañ leen ko wax. ban écart la am. waaw am na écart parce que parce que parce que Sidi susoon na si Walis ku ne xam ne loolu. Mm-hmm. non bu ñu waxantee dëgg pour dire vrai ah ñu bañ a ko mm-hmm. Sidi tey demoon na foo xam naa tëgg. Mm-hmm. parce que boobu sénégalais wuy si nañ ko. mais si diggante bi lu soppeeku bari na mais gars yi nag seen quitté intéressé wu ma mais man sama quitté man la concerné. di ko nuyu di ko ñaan jàmm di nuyu orchestre bi ñoom Momo ñoom Jere ay nit yu baax. mais est est-ce que du yow quitté bi ci yow la njëkkee moo tax yeneen ñi dem da nga quitté. waaw ay ay dem Ndeye Ndiaye Banda yaa dem Ndiapou Zo daal di dem. mais man dama quitté loolu moom kenn ku ne xam na ni c'est raisonnable man sama quitté boo ko doon quitté man sama quitté c'est raisonnable li ma quitté c'est raisonnable ku ne xam na loolu yaa ngi dégg man sama quitté c'est raisonnable. Mhm. ku ne xam nag li fi jotoon am. Mhm. kon man su ma quitté rek c'est raisonnable ma quitté man sama quitté moom boo ko doon quitté gars yi man sama quitté mooy damaa ànd ak nit. di ko liggéeyal na fekk ma si ñëwul seet ma loolu tax ma kii de mais si kaw ñàkk ñëwam boobu tey peut-être mun na ñàkk temps répétition yi et tout ça loolu tamit mun na mun naa am mais man sama quitté ak quitté gars yi bokkul. ok mhm. maanaam période bi nga nekkee ci kaso bi wala bi la ndogal li dalee amul benn yoon boo xamante ni Sidy Diop jël na tànkam ñëw seet la. waaw seet si loolu dëgg dëgg la seet si ma parce que tey man dama naa fekk dëgg la seet si ma mais tamit euh, euh, jour si guddi gi ñëw na fi. ñëw na fa mais à loolu euh, ñëwaat du fa seet si moom mais tey bu ñëwoon moom moo moo moo nekk lu ñu gënal quoi. parce mais kon 6 000 loolu daf la metti waaw métti waaw métti na ma mais dara mais teewul man lu ma jàppal yëpp jégal naa ko. du tax mhm. du tax tey ma xarab ko du tax moo ko dara parce que tey am na ñu ma ñëw seet si moom moo leen ëpp yéene sax. Mhm. pour ma génn foofu. Mhm. comprends nga mais tey moom bu ñëwoon seet si ma damay gën a am sac parce que ku ne xam ne kaso lenn dong mooy sa sac mooy chaque jour ñu leen 6 000 duukat yónnee na la temps. Oh. peu en arrière man sama quitté mooy dëgg la du ma nëbb loolu métti na ma parce que tey sama sac bi kaso bi mooy sii Sidy ñëw na seet si civil problème loolu sama sac la ku ne xam ne nii kaso euh, li ñu lay dugalal si xaalis ak yu ak yóbbante yi ak ak ñi lay seet si ñooñu ñoo tax kii am na mbokk. Mhm. kii kat ay mbokkam yëg nañ ko. Mhm. mais su ma toogee si kaso bi yëpp ku ne xam ne nii am naa jafe te Sidy laa ànd ñëw fa loolu day nekk loo xam ne carrément tey neexu ma mais tamit su bu ñëwoon moom mooy lu ma gënal quoi mais nag comprendre naa ko d'une part peut-être mën na bañ am jot mais tamit am na ñu fay ñëw seet si ma ma leen gis moom ñëwul peut-être moom moo la ëpp yéene pour ma génn foofu wala moom tamit peut-être tamit xam naa tamit xolom may ko mu ñëw jaaxarom ma. jaaxaroog man ci condition yooyu dama koy comprendre rek mais loolu dara méttoon na ma trop nag mais jégal naa ko ab jullit day jégal loolu dara kon man sama sama sama sama ñàkk bañ a ànd ak moom c'est raisonnable quoi. Mhm. comprendre nga di ko nuyu de passage ah di ko oh, di ko gaynde jàppal. Mhm. yoon bi métti na trop mais da jàpp gën a góorgóorlu gën a yokk gën a waxtaan ak say nit mais man moom wax dëgg yàlla li des sama carrière waxuma la waali de. njabootu waali lay topp ay xaram ak ay ginaaram ak ay bayam man fi mu ne nii xoolatuma artiste ku dul waali parce que damaa defar ne naa la ñi nekk ramdaam yëpp def vingt ans ak waali man la waali gën a dimbali. Mhm. man sama carrière la waali defar. sa carrière la waali defar. waaw ok euh, kon générosité générosité bi nga xamante ni ñu ngi koy wax ci waali euh, yow confirmer nga ko maanaam mbaax gi yaatu gi oyof gi. mais c'est le porte-bonheur de la musique sénégalaise boo ko gisee sa aajo faju wax ma boo xoolee barki dem ba mu demee Gambie wax wax naa ko sànq say confrères. Mhm. barki démb ba mu demee Gambie ku ne xam boo xoolee seen économie dafa wàccoon. Mhm. parce que ku ne xam na ni Gambien la si seen pont boobu lañ doon dundee. Mhm. heureusement gars yi dafa pont. kon seen économie wàccoon na. kon léegi xam nga ni trois jours yi fa waa def big bi économie bi yéeg na. yéeg na laajte Adama Baro. kon nga xam ni c'est pot porte-bonheur de la musique sénégalaise. waaye fu mu génn nit ñi topp ko lu waral loolu. xolom mais est-ce que est-ce moom pare ngeen parce que wax ji bari na trop ci moom. waaw mënut a ñàkk mais nag bu xamee woon kon ni ma ko xamee man man mii ñëw barki démb ñu bëri noppale ko. Mhm. barki yenente bi wala du artiste dong de. daa ànd ak samp yàlla de. daa ànd yàlla. barki yenente bi dafa am ak samp yàlla du artiste dong de waxuma la ko caaxaan de ko koy fexeel moom na nga na nga sóoraale sa bopp de. na nga sóoraale sa parce que am tax loolu ñu koy ñaanal moo bari te te juruñu ko. Mhm. ordonnance yi muy def mhm. ah, social yi. ku ne xam na nii Tabaski ak màggal ak gàmmu Wally bu téyoon poosam téye loxoom mun naa am cité loolu ko téye am cité. Mhm. loolu yéen xam ngeen ko sax. Mhm. waaw loolu dara waa loolu lu ko arrivé noonu mun naa. non non non non non lu ko arrivé loolu mun naa arrêté artiste yëpp nit day dox faasaalu daan loolu dara. Mhm. waaw Sidi non non képp kii Sénégal tamit da nga ko a ñaanal tamit ah parce que Sidi euh, bu nekkee au top showbiz day neex. parce que showbiz fa moom concurrence. mais kenn du the king of. the king kenn du moom. waaw mais nee nañ daanu bi sax moom moo ko tey parce que dafa bëggoon jugaat. non non non non non non am na talent. am na talent ba pare mu ngi si label bu baax mu ngi ànd ak euh, koo xamante ne xam na musique. Mhm. Mataa Diop suba teel. Mhm. bu ko déggalee rek mun naa sori si musique. comprends nga mhm. mais man moom sama jëmm li des sama àdduna si musique waale bu woyatul maa ngi xaar Ndeela Waale maa ngi xaar Mouhamed Waale man mii waa kër Waale laay xaar. ñoom ngay ay doomam laay xaar. ay doomam bi ñu wéyatul ma xaar ay malaam. mala yi <laughs> bu ñu wàll lay topp sama carrière mala bu ñu wayul bu leen comédie waaye sama carrière la defar xam nga damay wax nga jàpp damay ma ni dimension yi ma nekk jamono gi bu baax. kon ko ba ci kaw. waaw niveau bi yëkkati naa ko mais grâce à Boussita. xam nga bu ba pare ba pare bu tey fii dafa léere leen ko kagul bi dafa léere mais mais bu su mil su mil kagul bi nga wax ak nii de ne ko ne ko ne ko mais ne ko ne ko Dakar baa ngoo jeunesse bi song ma moo dootoo leen ma xàmmeete i ma rek maanaam jeunesse bi mhm. guddi jeunesse ni ñuy toppee Bou Siteu di ko topp Wally Seck mhm. waaye sa fa jamartar ma mais est-ce que Wally joxu ci butéel yi muy laal mais tu dara xam nga rek maanaam waale maa moom dañoo nduroo niveau maanaam ay niveau yu nduroo kon ñooñu rek a war a nekk waaye. mais kagul bi doo ko dindi ma may jàkkaarloog. mais kagul ah bi laa doon làqatu rek dama làqatu ba sonn. mais instant yi moom na waaw. nga rek yaa ma gën a xam. maanaam bu si original baa ngi mais dama doon nëbbatu jeunesse bi. Mhm. ak jeunesse bi ni ñuy toppee bu Siteu guddi yi. Mhm. xam nga xam nga rek. waaw loolu tax foog may sol kagul daal. ndeysaan ndeysaan. Ah, mais nag euh, jamono ji dafa mel ni gis nañ la yaa ngi ci ay loxo yu wóor a wóor. dëgg la ay loxo yu wóor laa nekkoon te parce que ñëpp xam nañ ne ay temps si ay loxo yu salte laa nekkoon. Mhm. ay loxo yu safaas. mais léegi si ay loxo yu wóor ay loxo yoo xam te nii lépp lu ñu wax def ko. waaw ma gis ma gis sa statut nga signé contrat ak. contrat bi nu mu demee ku di di wala ma wax dara damay nuyu DG Ousmane Sylla mhm. DG Ousmane la directeur Dakar Dem Dikk mhm. di ko nuyu bu baax waaw maanaam Bou Siteu lii moo lay won ni maanaam ñëpp ko bëgg daal mhm. waaw gis nga biis yu ñu wàccee wàccee trois cent soixante dix biis yow tuur ko ci réewu Sénégal xam nga rek mu xam ne Bou Siteu porteur de voix la waaw ku si mel ni DG su la contacté ma ñu waxtaan mu ne moom moom daf may suivre ay doomam ak ñëpp ay suivre bu Siteu ba si jabaram sax mhm. kuy suivre bu Siteu la mhm. te gis na maanaam ni may defee sensibiliser di sensibiliser ba pare gis na tamit ni ma jeunesse bi joxee bopp mhm. lu ma wax jeunesse bi ne waaw te parce que xam na ni man naxantewuma jeunesse bi man sax ñëwuma pour sàqatoo jeunesse bi de wala taxaw naan jeunesse bi jeunesse bi comme yeneen mbëri def naan jeunesse bi jeunesse bi tey ñu xëy gis la nga def leneen loo xam te nii bokkul ci lu jeunesse bi du bëgg xam nga rek mu ne kon publicité bi loxo Bou Siteu laa koy teg mhm. ñu publi ñu ñu ñu def sensibiliser si Dakar dem dikk yi mhm. waaw di wax ne jeunesse bi rek dañ xam ni biis yi suñu biis la xam nga waruñu nangu ku ko toj mhm. waaw ñi gars yi ñuy digal naa leen toj leen biis yeeg taal leen biis yi ñooñu seen i kat kat yu am kilim la ñuy nekk kon ñun biis yi mooy suñu kilim biis yoo xam ne am na kilim biisu Dakar dem dikk yoo xamante ne ni maanaam ça fait diamétralement opposé ak biisu Dakar dem dikk yi wàcc guddi yi am chargeur sa téléphone bu fi dee da ngay mhm. branché rek ci câble mu charge sa vite fait nag xoolal maanaam balaa vingt minutes sa kóol fees Dakar dem dikk. Mhm. ku si mel ne directeur di ko nuyu bu baax Ousmane Sylla. macha allah waaw di kontaan si moom bu baax a baax a baax. Euh, Tafa Gueye de dégg naa mu wax nee na fi mu toll nii euh, sa combat moom euh, taxaw na te li nga xamante ni moom la def bu Siteu kii Laurent lu ko raw dina la ko def. non loolu moom day wax rek Tafa Gueye de moom day neexal rek maanaam moom day day day day naxaate ba daan la te ku xool combat moom Laurent Ndiago dafa nax Laurent Ndiago ba daan ko nag bokkuma ak Laurent Ndiago. maanaam man loxo yu wóor yi ma nekk rek daan na Tafa Gueye 2. mais Tafa dafa entraîné. mais dafa entraîné comme kon man entraîné wu ma. ah man xaw ma de. non combat boo xam des na cinq mois ma war si génn voyage yi dem yokk ji doole. di ah nuyu waaw di di di waaye di nuyu ku baax. waaw di nuyu ku baax duma sax tudd tur te parce que léegi fii loxo bu baax bu ma am tudd ko nga gis Tafa gay daw dem dem di naan naan naan day seeti kooku. Mhm. fan yii son yi bu la fi seeti woon. son yi ban son yi bu mel ne télécom. te ñëpp xam nañ sama diggante ma ak son yëngu mu de maanaam samay nit yu baax lay wër di fa dem. te euh, yooyu bokkul ci làmb. mais naka ngay def ba gérer succès bi nga xamante ni sunu borom jox na la ko ci dernier temps yi. waaw succès bi moom du ma koy doxee rek muy maanaam wàccee sama bopp man damay man man ba tey xaw ma luy succès de man succès comme ni nga ma ko waxee nii noonu laay toogee ay nit di ko wax ma koy dégg rek. Mhm. mais man xaw ma sax luy ay succès ak yooyu. Mhm. man Baye Fall taalibe mais yow luy succès succès yoo xamante ne ak ay man su joxee su ma dégg ñu naan ay yow la waa Sénégal dugal kii année. lom des années xaw ma lan. waaw man xaw sax luy lom des mais lom des yoo xam te nii àndul ak sax kado oto boo fi kenn waxate ay lom des années du ma du ma du ma benn lom des années waa Senewet waa Senewet nag sax fait porte plainte. Ah. parce que un foog ma porte ah taf ma si kii. di wili pande Bou Siteu naan Bou Siteu mooy l'homme des années. te amoo oto si ay waxu kese dinaa leen porte plainte waa Seneweb. Hmm? waaw wallaahi li may wax. idaali idaali bu Waly sekk xam na li may wax bu baax. Mhm. waaw mais euh, jamono ji dafa mel ni da ngaa jox bopp ki nga xamante ni moo di le chanteur du peuple Waly Balago Seck. waaw les chanteurs du peuple maanaam man Waly Seck lenn rek laay laay affecté ñi nga xam te ne ñoo gérer affaire u sapeur u police di leen wax ne maanaam. damay interpeller directeur u SAPOR di leen wax ni Wally Seck dina mës a def est-ce que xamoon ne Wally Seck dina mës a def kirimam dina soirée dina mës a am kirim hmm? te parce que un foog maanaam ñuy ñu ñuy wax ak SAPOR yi ñu fiy indi ay ay centaine oto SAPOR ndax Wally Seck way muy way ci réew mi Wally Seck gisoo keroog gàmm bi nu mu def gàmm bi tuuti gars yi dee foofu Wally Seck wayam bi wala bu Wally nag boo wàññiwul ni ngay woyee di nga mës a def kirim sa soirée waaw di wax ne sappoor yi nañ ñëw suba. sappoor yi nañ fi bëri xam nga damaa xam lu may wax guddi yi Wally am na lu mu am na lu mu dencal jeunesse su Sénégal ci way bu neex. yow Wally Seck lu mu way ñit ñi challenge ko léegi mhm. comme Bou Siteu rek su ma def lu ma wax si interview gars yi dem TikTok ko challenge ko kon Wally tey dafa toll si guddi yooyu waa di interpeller nag directeur u sappoor wax lu ñu mën a buukale wu si ay sappoor indi ko fii suba rek nañ ko fi indi quoi. Mhm. xam ne Wally Seck bu dul loolu dina def kirim si soirée waaw question bi ñu tëjee mooy ñu ngi waaj élection te ku ne xam na ni yow yaay euh, porte parole des jeunes euh, lan ngay dénkaat ndaw ñi ak ñi nga xamante ni ñoo ŋànk nguur gi ak les opposants waaw li may dénk ñi ŋànk nguur gi rek benn message laa leen di njëkk wax di leen wax ne tëli tëli yoonu Tiwaawan Pël bi mënoo leen ñoo defaral Tiwaawan Pël yoon bu gaaw yoon bu leer te defoo leen fa ay lampe te loolu Cambérène ba ba ba Cambérène ba tiwaawoon pël amul lampe da ngay gis oto bu gaare sax ñëw seere mhm. nga gis nit daw ba daw dugg oto bi mhm. ay nit a nga ñàkk seen bakkan si yoonu tiwaan pël bi mhm. ndax lëndëm bi mu lëndëm maanaam manqué manqué sécurité te ñun ay carburant la ñuy lakk di jënd ay essence yu seer chaque jour bu ñuy ñibbi di jaar foofu di lakk carburant kon xaalis boobu noonu nga la waay defaral la ñu si làmpu yoonu Tivaouane Peulh bi leer ñi ñi kii mais chaque jour soog yoo xam te ne kenn xamul nu mu demee ndax yu ndax dëkk bu lëndëm message boobu laa am lu may jàllale mhm. di jàllale tamit jeunesse su Guédiawaye di wax nañu yeewu mhm. te xam ne xam nga affaire politique yi maanaam ne nañ maanaam ne na na jeunesse bi yeewu mhm. waaw na jeunesse bi yeewu xam bu baax ki ñuy wooteel te parce que réew mii nii guddi ku wóor lañ ko war a jox war waru ñoo jox ke kenn kuy nax jeunesse bi si réew mi ndax jeunesse bi sonn nañ jeunesse bi lu ñu jot a dund rek dafa doy kon ngalawaay képp bu ñuy falate fii nañ fal ku wóor ndax gars yi dañuy yërëmantalu ba nga fal leen ñu ñu ñu falu rek nekk ay golo ñoo gën a xam li ñu lu leen ah, wax. nekk ay golo xanaa yow kon li euh, li li Boy Niang wax Modou Lo moom ngay confirmer comme maanaam. Ah, yëgoo li Boy Niang wax Modou Lo. non yëgu ma ko maanaam ñu sama niveau dépassé na ñooñu. sama niveau dépassé na ay Boy Niang ak ay ñooñu man sama niveau dépassé na mbër yooyu de. mais seetaanu se seetaanu ma ko sax maanaam sama niveau léegi niveau bi ma toll moo dem ba dépassé naan maa ngi suivre ay ay mbër yi nga xam te ne ay ay ay raq lañ maanaam su ma la mënee wax sama kanam <laughs> ay raq lañ. Ah maa leen dàq communiqué dàq leen a bëri ëpp leen fit bu xam Modou xam nga ma bu baax booy Niang yow it xam nga ma bu xam nga kuy buusite bu baax a baax a baax. sama niveau dépassé na leen léegi. mais combat bi ñoom ñaar euh, kan kan mooy kan mooy mooy favori si combat bi. waaw combat bi suñuy wax favori moom Boy ñaa mooy favori. waaw Boy Niang mooy favori ba pare len laa lay wax si combat combat bi gis naa si dóor mu daanu. dóor mu dóor mu kawte maanaam ñu dóor si mbër mu kaawte waxuma la comme ça ñu dóor ko niir bu kii maanaam mu kawte ba ba perral ñu daan ko. ñu loolu laa gis si combat te incha allah combat bi yàggatul na ñëpp seetaan xool. merci laa am lu may wax.